ñaanu xaas faral ñu ngi lay fay ñu ngi lay bëggee naka bagaas yi ba am nga jàmm alhamdulilah sant Maolana Cheikh Ibrahima radiyallahu taala anhu sa diggante ak presse ba tax nga bàyyi sa yitte yëpp ñëw wuy Mbacké sunu xarit la ko ci euh, maye bi di ko ñaanal barkeel bi yàlla boole seen jikko boole seen wërsëg may leen ñu mag dana ba moom tey loo koy dénk ah, la te moom gannaaw mooy sunu sëriñ moom te taalibe boobu moom war a dénk dara maanaam lu talal loxo yi ñu talal yi mu ñaanal ñu rek incha si mu jël tam ba amoon loo koy dool tam xam ne tam dugg na ci lu doy waa si moom suma waay la xam man moom daanaka am ñaambur ñaambur la ndax soxna si ñoo bokk suñu xambala xambala ak jàpp euh, màkk baraga yi jàpp euh, jëléer yi jàpp gumba ngéwal waaw yooyu samay dëkk la man daanaka am ñaambur ñaambur la tukulóor la mais ñaambur ñaambur la waaw jours yi ay quelques jours a ci des muy diggante Balla Gaye Tapha Tine boobu combat coow li bari ba ampleur ampleur noo jàngate ko waaw combat bi nag euh, tàmbale nañ ko ci bismillahi rahmaani rahim ni ñu ñaan yàlla ñu yeggale ko ci alhamdulillahi rabbi alamin nag combat bi ça fait 48 heures xam moo tere ñu ci combat bi may ñaanal promoteur bi ñu ko Baye Alain suma xarit rakk ci Aziz Alain yàlla may ko mu yeggale ak insha allah rabbi ba que le meilleur gagne mais nag moo suma xarit nag Balla laa gën a jege ka Tapha Tine bi def open press jëm daw xaaju ñu ci bëri yaakaar yow loo jàngate lool waaw yaakaar am na yaakaar am na yaakaar am na mën naa suñu xel naa dalati ndax Balla ma gisee démb wëndeelu def bi sama xel xaw na dal daal maa ngi yalla ñaanal yàlla ndam. ki muy dajal day tàmbalaase abee joo xam ne faalewul koy dox. waaw ki muy dajal nag ab bawal bawal la nag moom suma xarit la mais dama damaa gën a jege Balla nag ndax ñoom Baye Ndiaye ñoom Aziz Ndiaye sumay xarit lañ ak Tafa Buju ak Bousse Këccëb ñu samay waa lañ kon Balla laa mën ñaanal foofu rek. xam nga empereur empereur ndombal tànk la waaye roi des arènes ku ne xam na ne làmb li muy bari bari bari benn roi des arènes moo ci am muy Modou Xarañ loolu la Euh, Séeri Mariama borom unité 22 doomu yaay ñaaxarañ loo koo koy loxwaa des arènes Modou Modou Lo est-ce que du dem ba ba xaw a néewal doole roi des parce que ampleur boo xam dañ fay dañ lay fay xam nag man damaa maîtrise waa nag boo ma laajoon ci BSDA nag dinaa mën a xam nag BSDA ñëwaguñ ci mais dama bëgg a xam ne maanaam coowal ampleur ampleur ampleur coowal fay ba weer bi ñu lay fay ba nga amaat avance mais normal dànk rek normal dànk

Modou ne nag lu wax gën a bëri rek combat bi gën a métti ci yow. waaw loolu tam xaw nañ ci def la ragal la wala dafa te man bëgguma di dépassé ndax su ma waay la su ma xarit la su ma wóllare la mais boo xoolee wax yi boo ko jàngatee xam nga fii na matul 1 <laughs> d'accord mais ba tey muy tarki ndaa bi rek nga xam ne nee na li mu bëgg lay gis te kenn mënu koo xaj. waaw xam nga nag Modou li mu yor moom da koo fooywul te da koo da koo lim yor saamu ko di ko joxe da ko da ko dajee boof toog ci. ci xam ne moom mooy Siteu tey jii wala Siteu wala jàkkaarloo ak nga xam ne moom mooy Modou Lo est-ce que du am benn benn benn mal mal à l'aise mais Papis ni mu jegee Siteu ñu noonu man noonu laa jegee Siteu Siteu suñu xarit la rek mais xarit nag lu mu doon noonu suñu xarit nag bu bëri Modou Lo ñun Modou Lo la ñuy paral ñun benn mbër la ñu am muy Modou xarañ Lo yàqu na suñu relation ak benn mbër Balla Gaye suma xarit la Sa Thiès suma xarit la Ama Baldé suma xarit la dañuy demalante di wanante ay téléphone mais mbër nag bu demee ba si bata jot nag Modou Lo mooy suñu mbër noonu nag nañ mel ci mbalax bi mën nañu ànd ak waykat a teew ci lu ma wóor te dama ma wax ci loo xam ne ndax papi suma xarit la ba léegi maag moom waxtaan te gisaguma tamit Papis ak Modou Lo yaakaar naa kenn xaju ci lëndeg màddi la lu ci waaye di wax rek na ko xam Papis suma waay la sunu xarit la ñun ñu ni la daal. d'habitude bu si Modou waree am signature Papis da ko ci oto indi ko ñëw. Papis tamit mais Papis mën na am. yëgul ñoom daf ne yëgul ko bëggul combat bëggul am la. loolu nag da nag moo mën a répondre ndax bëgg na combat ba bëggul combat xarañ loo je ñaa xarañ loo li ma a wax mooy li ma maîtriser les maîtriser moom ma cee wax dëgg yàlla. ñu ngi waajal euh, tournée bu mag nag ak Wally Ballago Seck euh, le 27 incha ñu ngi fi war a jógee ak sunu doomu ndey Metsop war fi jógee le 25 yegg Paris le 26 ñu war a joué foofu ci Jeux olympiques ca euh, Arena Adidas incha allahu rabi le 27 lañ fay joué ci kattan sunu borom. kii Wally Seck. Wally Seck c'est golden boy de la musique sénégalaise. l'ambassadeur fii ci Sénégal bu yàgg bi jaanu na ndax ndax la te doomi réew mi la Wally Seck du du malien war nañ ko nommé kon ambassadeur RTS comme man ni ma doonee le sniper des présidents man du ma opposant président laay àndal. waaw taxawaay RTS laa taxawee rek ku falu ma ànd ak is bu tarxiya. kon ngi xaar demande am ñëw mu accepté. waaw noonu lay demee sax man xaaruma sa demande man li war dama koy def te yàlla rek. waaw li ma dama koy def rek man international bi laa signé ak ñoom moom local ma bokk ak booy yi. ah daa mel ni waxtaan am na kon. non waxtaan man li ma xam moom c'est le président de tous les Sénégalais. gars yi ba léegi ni son excellence monsieur le président Bassirou Diomaye Faye président au la wala président coalition Diomaye président la. léegi c'est le président de tous les Sénégalais moom moo jiite ñi ko wotel ak ñi ko wotelul woon ak ña ko nangul woon ñëpp la boole man nag suis un citoyen sénégalais xaaruma nag ku ma woo ci yëf yi dagaluñ ma billet avion fay luñ ma visa fay luñ ma hébergement samay propre moyen laay demee di wane lépp en temps réel incha allah rabbi nit ñi di jot boo ko def financièrement est-ce que en retour di nga ci bëgg liñ soxla rek sama followers yi jox liñ soxla moo gis damay dem ci yeneen soirée wala may dem ci yeneen événement yi damay bëgg ñi bëgg mbalax di dem mbalax ñi bëgg dem soirée ñëpp ñëpp bi ñi may seen am na ñii dañoo bëgg mbalax ñii dañoo bëgg leneen ñi bëgg leneen mais moi je suis politicien aw ma carte APR aw ma carte Diomaye coalition Diomaye aw ma carte Pastef aw ma carte parti politique ku doon man taxawaay RTS taxawee rek képp président bu falu na naa fexe ba lépp liggéey ma ñëw wane ko en temps réel temps bi mayee allahu rabbi ñaa buuxante ñoom bu dee seen jolof mu bàyyi ko xale hmm? waaw man nag international

bàyyi Mama Diallo rek. waaw kay nag. appel bi commencé ku ci daawuda bi bërki démb nee na bërki démb ñoo bokk ci ñaari côté soo ma ko naajee wax danaa ci def li ma yàlla jox mu ne ko soo ma ko teelee wax ak soo ma ko yeexee wax danaa ci def li ma yàlla jox kon daawuda maa ngi lay sant di la gërëm daawuda sa rakk ne mu ngi lay sant mu ngi lay gërëm di sant mbay mii di sunu mag di sant mbay saar bii di sunu mbay mbay mbay mbay njaay mii di sunu mag ñun mbay sant di sant bàcc ñang mbay ma njaay njaay mee ma nee na fu mu nekk moom Pape Ndiaye.